que Moussa Diouf ñoo son ca somba ak réalisation bi euh, ñoo mbégte kon euh, dalal fi ki nga xam te modi euh, Mame Diouf nga jox ma titre ngi gis ñi ngi jox emploi des jeunes guñ ci déng <laughs> euh ah, ñu dem ci bi ñu dem ci bi mais mais mais mais lañuy dundé ak mburu waxtané artisanat donc ta ñu ñëw ci seen dëkk parce que seen dëkk dal ak problème yu bari yo xamné amone ngeen ko mm-hmm. Ali il y a encore des gens qui ci président Macky Sall mhm. mouvement des élèves étudiants nangam. Mhm. mouvement <laughs> des enseignants nangam. et C'est la même continuité aussi c'est la même chose autant pour moi qu'on <laughs> qu'on constate aussi a euh, les nouveaux tenants du pouvoir puis avec d'autres questions qui concernant concernent les secteurs de l'artisanat, d'ailleurs même euh, di dem en droit de li ñu donc au waxtaan ci wàllum xëy ak ndaw yu ni mel donc Babacar gan gaa ngi waaw non koy jëkk a tooñ artisan patriote boobu booy lan <laughs> loolu dama artisan euh, wala boo nekk euh, mm-hmm. kii dafa am benn parc daal wala damay dire artisan mm-hmm. léegi lan mooy artisan patriote mm-hmm. waaw artisan patriote boo ko déggee waaw mooy maanaam gëdd bi Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ak euh, président Bassirou Diomaye jox artisan ndax boo seetloo parti politique yi nekk biir Sénégal yépp parti Pastef rek mo jël ay artisans. Mhm. dugal leen ci bureau politique def leen commissaire scientifique en charge de l'artisanat lépp loo xamante ne wàllu artisanat la ci biir PASTEF ki ko gàddu commissaire scientifique bi nek suñu coordinateur national Babacar Varor moo ko saytu moo ko càmbar moo ko xalaat andi ci ak bureau exécutif. Mhm. Bassirou Diomaye le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay moom moo installé le MONAP. ndax xam dayo bi nga xamante ne moom la artisan artisanat am ci biir Sénégal loolu moo tax ñu wax artisan patriote parce que euh, new na comme ni ma ko waxee ci parti yi fi nekk euh, artisan yi lu ci ëpp maanaam euh, seen njàng soriwul moo tax ñu leen di beddi hmm. ci secteur informel waaye ci xarañte basiru Diomaye ak président Sonko hmm. Hmm. ci loolu lañu ñu ne Mhm. artisans yi ñoo yor solution yi. Mhm. artisans yi il faut ñu jox leen la parole. Mhm. il faut ñu mettre leen dans les instances de décision. loolu mu ñu am ci reconnaissance lool waaye artisans yi itam taxaw tem pour gunge li nga xamante ne moom mooy projet PASTEF. pour sa mise en œuvre ndax xam nañ ne euh, programme biñ ci gis ci wàllu artisanat buñ ko mettre en œuvre rek. secteur bi dina suqaliku bu baax. waaw léegi yow su ma la doon laaj avant ma lay laaj ci projet bi lan la ci artisanat tey secteur artisanat Sénégal. Mm-hmm. tey boo doon boo ma doon expliquer yan xeetu problème yan problème la ñu teel ak yan yan yan solution. yéen au niveau ci projet bi moom ngeen yaakaar ak est gour gi bi mu fi toogee ba léegi sentir nga ne am na lu mu ci def bu fekkee am na lu mu ci def nga am loo ma ci siteel tuuti. loolu dinaa ci sawar a tontu. waaw que ku ci mel ni man nekk ci secteur de l'automobile xam nga ne tout temps nga dégg ay déguerpissement boobu problème la bu njëkk boo xamante ne euh, état bu fi jaar te na la tey ci suba rek ñu ngi assister à un point de presse fii ci ancienne piste fii ci ginnaaw mm-hmm. ci ay milliers de personnes yoo xamante ne dañ leen déguerpiroon ci loo xam ne anu amu woon benn urgence ndax ça fait onze mois boo xamante ne yàq nañ seen bagage yàq seen lépp te defuñ fa dara mbalit rek moo nekk ci biir kon loolu mu nekkoon lu métti ma leen di vraiment di masawu de passage. di wax ñoom mais ba léegi ñu ngi kaas de nee nañ li leen nguur gu bees gi li leen digoon ba léegi gisuñu ci dara moo tax ñu yëngu tey. non dañu yëglu kaasuñu dañu dañu yëglu rek. xam nga nguur gu bees bi fi nekk instant bi képp ko reproché dara. Mm. dangaa ngaa yàkkamte parce que ñu fi fekk ak ni ñuy fekkee dëkk bi il faut ñu càmbar loolu ba pare doog a jublu ci li nga xamante ne moom mooy solution yi. te jàpp naa ne ci projet PASTEF bi. Hmm. lu lu mel ni wàllu déguerpissement kenn dootu ko wax ndax dañu programme des zones d'activité industrie artisanale ci biir département yépp ak communes yi fépp hmm. fu ñu dagg école dañ fa war a dagg zone d'activité artisanale. Hmm. loolu lañu comprendre xam ne loolu bu taxawee ci communes yépp ak département yi kenn dootul wax déguerpissement parce que di nga xam ne béréb bi ay mécaniciens ñoo fi nekk ay ñiy jaay affaire artisanat affaire yooyu di nga xam ne. lolu solution définitive lay doon. Mm-hmm. ñun dal le PASTEF ñewul pour déplacer le problème des déguerpissement dafa ñëw pour régler ko définitivement. par des solutions lolu bokk na ci lo xamantene marqué nañu bu baaxa baax. ci mm-hmm. ci ci euh, projet bi. Mm-hmm. mais artisanat du mécanicien rek. waaw mais euh, bo déggee manela la Zodar yi ñu programmer c'est pas seulement les mécaniciens ni am des produits artisanaux ni tailleurs yeeg les menuisiers tous les différents corps de métier Nous ñoom dans ces zones d'activité. activité mm. kon euh, du mécanicien rek la waaw man en fait li mu ko bëgg laaj comme ni ñu ko waxee sànq aussi dañuy seetlu à chaque fois que benn parti bu ñëwee wala ñi nga xam ñooy jiitu dañuy am seen ay artisan wu bopp wala et mm-hmm. mais dañuy remarqué ne am na wala dañuy fàttali ne am na lu ñu tuddee chambre de métier. Mm-hmm. te boo xoolee chambre de métier boobu bokkul ak chambre de commerce chambre de métier boobu moom mooy en fait ñi nga xam ne mooy seen mbokk artisan yi nga xam ne ñoo fa yëngu. Mm-hmm. ma doon laaj bi est-ce que ñoom nag la ñuy collaborer ak euh, chambre de métier wala chambre de métier boobu tey jafe-jafe ya fa am nag ngeen fas yéene liggéey ak ñoom ci loolu. waaw par la pertinance de notre coordonnateur national def na ci ay propositions yu bari mooy ñu réformer les chambres de métier. Mhm. parce que chambre de métier yi euh, pratique yi ci nekk maanaam euh, jamono da koo dépassé. Mhm. amuñu ñoom amuñu jumtuwaay yi war te aussi artisans yi du leen sentir bu ñu amee problème doo gis kenn ku jógee chambre de métier. ñëw taxawu la wala mu orienté la. Mhm. loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne mu ngi ci projet bi réformer chambre de métiers yi yokk leen doole waaye ci côté administration aussi ñu xam ne c'est des chambres yoo xam ne waruñu ko politiser te li gën a tardel sa secteur là ñi ngànk institution artisanale yi ñu ngi ñu ngi ci parti politique yi. Ah, mais loolu wax ji nag mm-hmm. no mais ñun ñu loolu yoruñu ko. ne ñun dañu ñëw bu demee ba changé par exemple comme yéen a nguur gu bees gi mais est que dul encore looloo fa nar a am mais pourtant ñi yor ñi yor chambre des métiers ñu ci ëpp bokkuñu ci suñu parti bokkuñu Pastef. par exemple xam nga ku mel ni Maguette Mbow. Mm-hmm. mooy jiite chambre de métier bi fii. bu Dakar waaw bu Dakar. Mm-hmm. yan yan relation ngeen am ak moom. a waaw am na fédération sax boo xam ne tamit moom moo euh, moom mooy à part chambre de métier bi am na fédération bi aussi euh, di nuyu de passage le président Maguette <coughs> ak mm-hmm. euh, Issa Diaye président union nationale des chambres de métier mm-hmm. am nañu ay relation bu bu yu baax seulement que comme li ma wax rek am na ay manquements yu bari yoo xamante ne les artisans de la base dañ koy noter à travers ces institutions là mm-hmm. li ñu war a def dëggantaan ñoom nekkuñ ci parce que yu bare bare yoo xamante ne mu ngi xew ci secteur bi ñoom ñoo ko waroon a plaider ñoo ko waroon di plaider

Euh, bu ñu xool ci 2024 bi sax huit milliards et quelque la euh, daanaka bëriwul euh, ndax jàppoon ne lu ndaw la pour ñu jël en charge secteur bu am doole nii. waaw foofu je suis parfaitement d'accord parce que secteur bu mel ni hmm. artisanat daanaka Sénégal fii mun ngaa wax ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay artisanat la. kër boo dugg fii rek ci Sénégal. lu mu ndaw ndaw am na ñetti artisan hmm. parce que artisan dafa yaatu hmm. kon secteur boobu dañ ko war a fonk dañ ko war a fonk jox ko gédd jox ko li war parce que boo xoolee eh, jëy yi am fan yi yëpp ci jël mbokki meek yu demee noonu hmm. nit ñi ñàkk pexe rek la hmm. da ngay gis par exemple ngay liggéey ci benn béréb ñu jëlee la fa yàq sa liggéey nga yore njaboot amoo nooy def nan ngay def mais Abdou foofu bëggoon naa ko laaj hmm. aussi dëgg la dañ leen di masawu par rapport ak fi ñu leen di jëlee waaye léeg-léeg aussi fekk benn espace rek occupé ko. te amoo benn këy amoo benn loo xam ne yaa ko moomal sa bopp ñu bëgg la fa jëlee nga woo presse. de tamit lu jaadu bien vrai que nag dañuy daan doole. voilà mais loolu tamit lan moo ci solution. loolu loolu c'est des yoo xamante ne ñu ñu koy boole si seen xeex. parce loolu dafa am solo rek.

ouvrier bu bu dem teg boppam fenn. comme ñoom fa leen jëlee ñoo ko nekkoon fii piste bi. ñoo ko moom dañ moo leen fi joxoon. Hmm. man mii fi ma nekk Ouest Foire à la bande verte. amoon na kayit préfet Babacar Kane moo ñu fa installé. Ouest Foire ci bande verte bi. Hmm. Eh, te état bi bi nga xamante ne moom moo lay recaser foofu. Hmm. moom moo am devoir pour gunge la. orienté la bala mu la fay jëlee yóbbu la feneen soit mu jaay waaw waaw mu mu yóbbu la feneen. foo xam nga état non non non état état bu fekkente ne moom moom suuf suuf si état ko moom. si boo boo amee ay questions si mën nga ko soroxal ah. waaw <laughs> léegi xaar ma développé ci. waaw comme li nga wax. gars ñu lay soroxal soroxalee. Ah. waaw loolu je suis à l'aise xam-xam lañ bëgg je suis xam nga artisan yi. <laughs> boo xoolee tey li ma la wax ancien piste. Mhm. mais nguur moo leen ko jox. Mhm. nguur bu mu leen ko joxee pourtant c'est des bandits fonciers noo nekkoon ci ginnaaw yëkkati leen. boo mënoon may image yi. yëkkati leen foofu. Mm-hmm. sànni seen i bagages yàqal leen te mujjul fenn ba léegi dem naa foofu tey rek mbalit rek nga fa gis amul dara. ci ay père de famille yoo xamante ne dañu doon fayal seen doomu jàng mm-hmm. yore seeni njaboot nga toroxal leen léegi ñu ngi ci alentour yi mm-hmm. nan ngay def pour pour recaser leen au moment où kon yaa ngi dégg ne nit ñaa ngi caxat caxatee suuf si. Mhm. les artisans ay doomu sénégalais la. tout à fait dañoo opté pour toog fii liggéey. Mhm. yor ay ndaw di def ci ñoom xam-xam. Mhm. di créer emploi et nguur gi fi nekk problème bi ngay am mooy employabilité des des jeunes. mais léegi ñi am ak acquis ba pare. nga koy yàq. c'est c'est amener les gens au chômage. les pousser à prendre à prendre les les pirogues. Euh, mën naa wax ne question la mooy sànq. la ko doon laaj wante. Euh, li ma seetlu mooy maire yi dañuy dañuy ñoom ñooy gën a jaxase comme euh, architecture bi ci mbedd mi. Mhm. ak euh, ñoom ñooy seetaan mbir yi daal. waaw non exemple mécanicien yi ñëw ci benn tali rek. ñoom dañuy mhm. seetaan. Mhm. mais man lu ma lu may wax mooy dañu desee am vision ci lu jëm ci. ñenn ñi nga xamante dañuy créer ay emploi tout à parce que man pour man ni ñuy jëlee terrain yi di jaay di jaay dañu war di sóoraale. comme par exemple man pour man su fekkoon ne dañ ma joxoon ne ma meeru benn gox nga. dinaa xool euh, maanaam parti yoo xam ne fa laay teg sax maire yi nga xam ne dañuy jaay table. nga xamante ne dañuy am benn couleur boo xamante ne ñoom ñëpp. fa la ñuy loolu yàgg naa ñu am ay gox yu ah. ñu am estime maanaam ci architecture bi ñu xam ne point yi lañ war a nekk. ñu organiser ko quoi. mooy yoon loolu moom d'accord naa waaw nga xam ne yow bu boobaa sax su fekkee da nga leen di fay sax ñoom dinañ fay. mais man li ma seetlu mooy maire yi dañuy jaay terrain yi ba pare après. en complicité am problème mu. Mhm. ut euh, ñii fan lañu war a nekk di dagg seen i impôt kii ak seen i mais beneen côté bi tamit mooy am na si ñoo xamante ne ñu ma seetlu comme si mécaniciens yi. Mhm. ñoo xam ne war nañoo mën a am place yu ñu loué. seen bopp nga xam ne maison bi day nekk pour mécaniciens yi kese. Mhm. maanaam am na si ñoo xam ne mën nañ ci génn bopp. Mhm. pour luweel seen bopp comme mhm. maanaam boo voyagé dem Europe ah. dem feneen ak feneen. ni ngay gisee ne day am benn kër boo xam ne juste pour pour mécanicien la. mu am espace am ak léppam am na si ñoo xam ne eh, eh, mën nañ ko defal eh, seen bopp. sans xaar état ci ay temps sax gisoon nañ ne euh, Macky amoon na lu mu euh, ay hectares yu mu joxoon sa jam ñaari suma jumbut. Euh, pour recaser ñenn yaa ngi wax sànq problème recasement ba nga naan ñi yóbbu fee ab état moo leen. mais est-ce que souvent tamit ñoom ñooy bañ ñun ñëpp arrangé wuñu tey voilà est-ce que est-ce que ci arrangement boobu lañ ko xoolal est-ce que réew day développé noonu aussi ah léegi mooy dox jëm noonu am na ñu bëri ñoo xam Kër Massar dañ doon wax bu njëkk arrangé mais fi ne Kër Massar fi moo gën a peuplé fii xam nga xam nga jam ñaajo ah. mhm. euh, pour revenir un peu ci li soxna si wax mhm. boo gisee zodar yi yi Pastef programmé mhm. effectivement dafay revenir ci loolu nga wax maanaam commune bu nekk dafa war a am

dafa dafa desoon. Mm. parce que bu fekkee da nga wax ne da nga jël mécanicien yi nekk Dakar yépp yóbbu leen jam ñaajo mm. mm. euh, fofu erreur la. Mm-hmm. parce que mënu ñu joggé fi dem dem dépanner ji. Mm-hmm. te dafa am ay préliminaire yo xamantene ne bu ko oto paanee. li ngay nan ngay def ba yobbu ko foofu. do mënul paan embrayage. mais mais Abdou lol est-ce que du andi moy mm-hmm. manque d'implication bi ñuy faral di wax moy manam maa ngi leen di defal projet waye ñin ñu ko sekk mom ko laaj ñu leen seen xalaat. c'est c'est c'est pourquoi le président basirou Diomaye jaxar fay il a dit parler aux artisans. donner leur la parole, demander les les solutions. Tout à fait. Mm-hmm. C'est pourquoi dans le projet PASTEF, am na ci ay volet artisanat yu riche parce que dañu laaj suñu xalaat. ñu mm-hmm. joxe suñu xalaat ñu tenir ko en considération. mais est-ce que faut démarche euh, juwaloo amu ci bi ñu gisee li nga wax noonu président la la waxoon mais premier ministre doon demee ci descente def descente aussi leneen la ñu gis mu ñëwaat defaat conférence de presse recevoir leen aussi primature ñu gisaat beneen version est-ce que tamit faut réeroo amu fi non rero amu fa premier ministre il est il est toujours constant. mom mhm. xeyna fi mu demoon moy affaire marchand ambulant mais mais lolu peut-être dalalon na len waxtan ak ñom mhm. orienter len au niveau de la DER. Mhm. loolu loolu jàpp naa ñu ngi ci wut ay solution xam nga lo lepp mënuñ ko lijjante dar dar parce que y a beaucoup de choses yo xamantene ne ñoo Euh, yàkkamte peut-être li ñu war a bàyyi kay mooy amul benn urgence de déguerpir les gens ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey l'urgence est ailleurs nañu na état mm-hmm. xam ne bu ñu bu ñu déguerpiree nit ñi c'est les pousser au chômage mm-hmm. bala ñu leen di en service moo nekk nii sama mbokk yi gis nga mbalit mi moo fa nekk Malick léegi fii dañ ko dagg ay terrain après dëkk ay parcelle parce que am na promoteur bi ñu ci jàppoon ci kaso bi. président Souley mu ngi ko wax ci suba rek. Mhm. bi ñuy dëgër pire gars ñu commencé caxat caxatee suuf si. Mhm. bugg koo seddoo. Mhm. des ko arrêté lépp. instant bi nekkul lu leer. léegi ñooñu ana ñu nga xam ne ñoom la fa jëlee woon ana ñu. ci mbedd yi mu ngi ci mbedd yi parce que amuñu fu ñu dem. amuñu fu ñu dem mu ci ñu ngi ci mbedd yi xam nga mënoo toog croiser les bras da ngay mën a laqatu. di liggéey doo am doo tranquille yaa ngi ci précarité bu méttee méttee méttee. Mm. loolu vraiment ñu ngi ci woo état bi fi nekk. Mm. mu mu gëstu leen. Mm. parce que y' a la de euh, dedans dañ leen war a jëlaat. waxtaan ak ñoom parce que artisans yi ba ñu ñu jëndi wala wala wala ñu lebal leen wala ñu may leen. à chaque fois bu ñu dajee ak ministres tutelles yi dañ leen koy wax. Mm-hmm. parce que dañu organiser wu. Mm-hmm. ñii c'est des c'est des organisations professionnelles. Ah. Mm-hmm. Euh, amnañ nañ. DEA directeur de l'artisanat. loolu amna fi mais DEA yi fi jaar yi fi jaar ay turu DEA la rek. Mhm. yi fi Mara day <laughs> <laughs> lañ def yi non fii fii wolof de. en ah, fait gis même am ngeen APDA euh, agence euh, pour la promotion et le développement de l'artisanat dirigée par actuellement. Sophie Zenga si. à l'époque c'était Pape Madin Amady sous l'ère Macky Sall. gis également ko wax ci la direction de l'artisanat est-ce que vraiment euh, ces decks sont dédiés ni jouer ce rôle euh, vraiment. Wow. en tant que ay levier Sophie nous koy maa koy nuyu de passage euh, ñu am yakar bu baax baax ci mom elle est mm-hmm. elle est elle est une artisante. Mm-hmm. moom artisane pure et dure la. Mm-hmm. ba pare maîtriser na lu bari ci ci secteur bi. té aussi mu ngi mu ci yoon. am nañ yaakaar ci mom ci agence bobu japp nañ né dina ci def ay jéego yu bari pour mun mun a dimbale artisans yi ci seen i soxla. Mhm. ci seeni i jafe-jafe les petites et mu gunge leen ndax euh, ouvrier boo gis ci atelier am c'est entrepreneur. Mhm. kon dañu war a vraiment jàppale leen ñu mën a am accès au financement. ndax nit ñi seen bopp yi lu bëri nga ci. Mhm. mais boo xoolee li ñu fi tuddoon ay DER ay FONGIP yi passé. artisans yi nekk ci base bi jotuñ ci dara. dara. mosuñu koo gis. loolu nag la ñu bëgg. ba ci rupture bi ñu woote nag. loolu ba ci Covid bi Covid bi artisan yi ñoo ci gën a mhm. artisan yi le ministre bu ñu dajee ak moom laaj ko 550 000. parce que dañu mbuuboo artisan yi lekk xaalis bi. Mhm. <laughs> loolu moo am loolu moo am dañu mbuuboo artisan yi lekk xaalis bi. Euh, avant ñu dem ci Fatou. Mhm. Euh, commande publique bi aussi souvent euh, Yélimane mu nekkoon. doléance bo xam aussi yàgg nañ koy coow. Mm. ci suñu réew fexe ba aussi dañu wax euh, commande publique euh, ci li nga xam ne moom la ci réew mi. Mm-hmm. Euh, bànqaas réew mi wala bokk yenn yi nga xam ne kilifteef réew man diko ko jëriñoo naka nga gisee loolu. bo bo boo conseil des ministres bi passé le président Ousmane Sonko. Mm. joxe na ay orientation. le président Ousmane oui quand je dis le président c'est le président du parti. <laughs> c'est le président du parti non. ça, attaqué ñu non. c'est le président a attaqué mais mais c'est le président du parti. moom joxe naa non c'est pas un lapsus pourtant. président lañ koy parce que moo jiite parti bi. léegi joxe naa orientation par rapport a ci ci kii boobu. ci ci mobilier national bi. c'est wax na les tailleurs des quartiers. surtout ci blouse scolaire yi. nañ ko jox tailleurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier yi. da ngay imaginer école bi nekk sa koñ. Hmm. ñu koy tabax sa baay joxe ci alalam. Hmm. joxe ci dooleem. Hmm. léegi bu ñu soxlaa ay blouse ñu ñu ne ñëpp waa dëkk ba. dem feneen jox leen lépp. loolu président loolu bu ñu soxlaa ay table banc yu waaw te te lu ci yàqu nag boo boo buggee daaba dangay dem ci tailleur bi nekk ci quartier bi. jox ko ne defar waaw. loolu moom euh, le MONAP mu ngi ci liggéey bu baax avec son coordonnateur. parce que dañu woote rupture dañu bugg li fi daan am. te artisans yi duñ ko jot. ñu taxaw ci. ba loolu loolu mën a mën a jeex. Mhm. am na solo da nga ci bëggoon réagir. Mhm. allez-y. Euh, ci li muy wax noonu pour euh, ñu jox leen commande euh, publique bi. Mhm. dafa am ay affaires yu bëri yoo xamante ne moom mooy jiitu loolu. Mhm. maanaam accompagner leen ba mhm. ñoom ñu mën a. Mhm. surtout topp waaw kay ci processus maanaam process yi ñuy teg. pour que ñi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo si nekk war ko jëli mën ko jël. parce que chaque jour nga gis ñu def lancé marché. waaye lañ lay tegal yëpp comme process. ñi nekk si koñ yi munuñu ko mënuñu ko matale. donc loolu noonu dafa laaj accompagnement maanaam. Euh, dafa am ay accompagnement comme entrepreneur li ñu nekk ay entrepreneur mm-hmm. maanaam da ngay gis ki ci koñ bi wala kenn ñoom ñi nga xamante ne ñeen ñi muy wax comme ñu si bëri jànguñu mm-hmm. waaye accompagnement bi war bi nga xam ne moom nga war a def ba kooku xalaat ne moom mm-hmm. entreprise la yor ñoom dañuy nekk si koñ yi mais xalaatuñ ne sax dañu war a màgg waaw kay du am ambition waaw formaliser Sénégal nag léegi lu ma gën a seetlu mooy suñ nee formalisation rek ñu dem maanaam dañuy jëli xaalis bu bëri pour ne dañuy formaliser. Mhm. defal la ni ne yaa. toog def tege ne foofu la yam. alors que mhm. gën na sori formation waaw dañu war dañ war a mhm. accompagner jusqu'au mën a yow jëli ji marché. après nga xam ne nag yow beneen yoon di nga ko mën di. defaral di nga ko mën da defar sa bopp. loolu loolu formation xam nga dañu ne 3FPT. Eh, passé artisans yi passé nañ foofu sax. artisans yi formaliser wu nañu formé wu nañu xam nañ fii lu ñu war a jaar. xam nga li li des. mooy ñi nga xamante ne ñooy benn benn groupe bi capté li nga xamante ne ñoom la ñu war a am ñu teg ko ci yoon. Hmm. ba mu war a yéeg ci base bi. Hmm. parce que artisan yi euh, dañu dañu dajaloo xam nga man mi jiite par exemple les organisations professionnelles hmm. artisanales. mais man mi kese kese mënuma dara. mais mun ngaa dajale ay nit ñu bari. ngeen nekk.

aujourd'hui buñ ko défé critère des fois yi ñuy demandé. ci mhm. appel da fay lourd quoi. des fois des fois di ci nekk duñ ko di ko mëna matal. lolu lolu c'est lolu sûr exemple cent mille logements yi état bi amoon. doon laa jël yoo xamante ni. j'ai bien compris bu féké né dañoo dem ñu né ministère de l'artisanat. euh déedéet supposons ñu né ministère de l'éducation. Mm-hmm. tek na process yi moom dafa war a ñëw.

Mhm. les présidents chambre de métier dans tous les 14 régions mhm. régions mhm. xam chambre de métier yi la. mooy seen dooleel te loolu boo gisee président Ousmane Sonko waxé ko noonu dañ dem ci département yi gouverneur yek. président chambre de métier yek. les artisans les organisations professionnelles toog waxtaan Mm-hmm. ñu ñu ñu échanger. Mm-hmm. xam li nga xamante ne moom la ñu war a def. Mm-hmm. ñu nekk ci pour yembalal état vraiment li nga xamante ne mooy seen liggéey. parce jàpp baal ma rek. Euh, temps baa ngi dem dama jàpp ne gis nga loolu mu mujjee daaneel lañ mooy chambre de métier yi la ñu war a dooleel. waaye tamit wax na ne am na ñoo xam ne day am benn groupe boo xam ne dañ taxaw fële. est-ce que lu mel ni ñoom li ñu créé nii Pastef fii faral nangam fële ñu regroupé woon ci chambre de métier yi toog waxtaan ak chambre de métier yi. du créé defaat <coughs> lu ci nek lañ wara ko est-ce que du foofu la faire bi nek mais pourtant pourtant xam nga euh, mal gouvernance moy mhm. waral yéen yi parce que chambre de métier. dafa am un répertoire pour les artisans. tout à fait artisans yi organisations organisation professionnelle associations, association wala leneen. Mhm. dañ normalement au niveau des chambres de métier. tout à fait bu dee état dafa ñew nak pour wax ak artisans yi. Mhm. dafa wara wax ak ñi nga légal et légitime. kon euh, loolu liggéeyu chambre de métier yi la. voilà parce que ñoom ñoo war a am seen pouvoir. ñu exécuter ko. ma état itam gunge leen. dooleel leen ci jumtuwaay yi nga xamante ne moom lañu ñu manqué. am na solo euh, merci beaucoup en tout cas euh, mais bëggoon naa cof ci seen dëkk bi amoon na ay temps. waaw waaw Diop Ndofène sama dëkk bi fa mooy mooy mooy département président fu mu dëkk. Fatick Fatick Fatick dëkk bi nga xamante ne da ngeen am doomu président te amul dara. ah Jagañaaw ci Fatick la bokk. non pas Jagañaaw Diop Ndofène. ah Diop Ndofène. Ah, Diop Ndofène c'est dans la commune de Diouroup. waaw président Macky Sall. ah suñu doomu eh. doomu Fatick la. en tout cas ah. Fatick de eh. macha allah am nañu ay borom xam. doomu Fatick mais dama gis dañ ko foofu c'était chaud ah. oui parce que boo xoolee 12 ans. Mhm. nga jógee ci région. nommé ay ay quarantaine de de de responsables. Mhm. defuñu fa tous. Hmm? ah yow Fatick boo fa duggee dangay ngay da ngay kon waa Fatick dañaa fatigué. <laughs> waaw loolu yaa ngi sant ah, <laughs> moo tax moo tax ndeysaan dama yërëm euh, seen politiciens yi fa nekk. Hmm. parce que dañoo amoon habitude boo xamante ne da ngay yor xaalis rek. di passé ñëw ci def say convoi au lieu que nga ko askan wi. Hmm. nit ñi amuñu sax xol. Hmm. parce que dafa am loo xamante ne c'est humain. xoolal Fatick ñaata nit la fi Macky Sall nommé ñu nekk foofu. seen bopp kese seen bopp boo duggee ci hôpital bi ñu wax ne sax mooy hôpital régional bu Fatick da ngay am mais mais waaw boo koy mm-hmm. inauguré man dem naa foofu dam mm-hmm. fa fa lay fajoo mm-hmm. su ma amee hôpital boobu da fay dem jànkoonte coono yoo xamante ne doo doo ko sax mën a wax da ngay jóge foofu dem ci euh, li li nekk Fatick kenn mënu ko wax non c'est pas un opposant man foofu laa dëkk foofu laa dëkk xam naa li fa nekk man mii par exemple am na vidéo yi ma la yoonee maa ngi le troisième village de la commune de mhm. euh, plus de de 4000 âmes mhm. boo xamante ne suñu xale yi fi ñu jàngee mhm. euh, dem ci commune bi il marche 14 km aller retour pour jàngi ji école pour jàngi ah, nga xool ay responsable nekk foofu ñun ñoo cotiser ñun suñu dëkk instant bi ñu ngi cotiser ba tabax CM depuis 2018 ñi top di bindi pour ñu dimbalé ñu CM mënul am commencé nañu tabax. lancer le le président de classe. Mhm. lancer ko ah, message ah kon dégg na euh, euh, mais heureusement le président doctor Cheikh Kanté ñëw na. Mhm. Euh, ba mu ngi fay tabax actuellement deux salles de classe. Mhm. ñu ngi ko ci remercier docteur Cheikh Kanté bu nekkoon ancien directeur port. moo waaw moo nekkoon ancien directeur port. ñëw na fa. Euh, mu ngi fay tabax deux salles de classe la population elle-même mu ngi tabax trois salles de classe moom mooy waaw moom moo am aussi euh, hmm. pour def loolu moo am prérogative parce que village yi dañu sonn hmm. boo xoolee li ma la wax ci ci kilomètre distance boobu hmm. dafay tayal loo xale li nga war a jàng doo ko euh, loolu nag vraiment Nous avons lancé euh, au ministre Moustapha Guirassi. Mm-hmm. mu avons gëstuñu. Mm-hmm. accorder vraiment une ouverture de de de collège de proximité. Mm-hmm. Nous avons xale yi nous avons nopplu. aussi nañ nous ndax fait euh, tem. xam nga tabax Mm-hmm. bon demain ben dajale ba ben tabax lu mel ni trois salles de classe. Mm-hmm. ci ay dërëm Derem pourtant euh, compétence mère maire là aussi si compétence transférée yi la aussi. Euh, bon euh, maire sax mun nañ à école ay qui primaires yi ci yooyu intervenir. Mm-hmm. mais le maire en personne vraiment le maire Tamsir Faye ex directeur de l'AMPEJ. moom aussi vraiment j'app na ci. parce que jox nañu enveloppe bu bu bou dëgër. jàpp ci ci liggéey bi. loolu loolu aussi c'est à reconnaître. merci beaucoup peut-être à la fin que ma taal téléphone nañ diffuser. diffuser vidéo bi en tout mu nekk lu am solo euh, je me rappelle que Marème euh, Ba nekk fële ci RTS léegi newoon Seneweb